Oh, like and subscribe to our YouTube channel. ɗo a salminama inde ma yettode ma hoɗɓe immorɓe ɓe kombo kono can minen ɗum mbiya bisimilla saare samaya ɗo e saare maawi minen jonde ceeɓe minen ɗum mbiya bisimilla e saare o minen ɗum hende mbaɗi dokkel minen ɗum hende beltani minen ɗum hende jahme minen ɗum hende ece kala taariɗo e mi waade fulde on fof on jalnama on duwanama par ce que yimɓe so dañi hunde on immima on gari on nootimaɓe ɗum ko yettere allah mawde e comité saare one mina ɓe sammina ina sammina imam ina sammina mistaba e ɓe ɗo e modi konko kamne o arde mumen fof debbo yo gorko on jarnama on duwanama on beltanama liggey mum moƴƴi minen tammina usta saare one o tinnima no bete par ce que sukaɓe hande siko dengal allah gandal woodi do no bete na sel e minen ɓesda duwa minen ɗaɓɓa e mon ñaagude okkon min dua e allah wada e ci barke wada e tundu e barke okka min kawral okka tundu o kawral um na e leydi ndi allah danda e seydani allah okka en ɗo kawral kewgal be allah okka be gandal usta do be wona allah okku ɗum no wawi be jangini imamona keynal mum ngal yo allah ɓoynugal waɗa e ngal barke min calmini fof fof salminama tundo fof ko ɗo salmini yawon duwanama kala bawɗo ɗo a duwanama a yettama a jarnama gila ɗo ha gol cakoen fof kala bawɗo ɗo aɗon calminama on duwanama minen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina yo ɗum ɓooyi tumbe ɓooye cee ha barke salatum fati ha barke makkar madin e eh, jafo ɗon mbina leɓa inde ceedi ɗi e eh, tan gaccon hakke eh, taw haala wee bane on jarama bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه فمن سار على نهجه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لسنتي الله سيدنا أمكن كن ورجام من كدد كردما جلي سيدنا أنتم بتدبي لمحمد بن عبد الله جلي سيدنا أنتم فكي أنن لرم أكيب فخمني فخمي يونم ويالله سبحانه وتعالى إذا جلي سوسي sambat menyatu ñaari dëkk yi waxtaan ak nit ñi fi ne li aju ci suñu wàllu diine bala door waxtaan wi dinaa gërëm ñaari alkaali yi bennoo bu fi nekk ak déggoo bu fi na ko yàlla saxal si ñaari dëkk yoo xam ne ku nekk ak sa alkaali la waaye ñaari dëkk yi ñoo bokk lépp ñoo bokk jumaa ju ñoo julle ñoo bokk fu ñoo defee julli weeru koor ak tabaski yépp lu nekk rekk waa dëkk bi ñoo koy bokk def ñu kontaan si lool di leen ñaanal yal na yàlla saxal jàmm jooju ñun xale yu ñëw ñu roy si mag ñi xale yu ñëw na ngeen seetlu mag ñi nu ñoo doxalee ñu doxalee ko because lii jafe nañu ko am dégg nañ fi ay dëkk yoo xam ne dañ sesoo waaye fitna rek mooy jaar seen diggante waaye yéen da ngeen am ay kilifa yoo xam ne mat nañ kilifa ji loo xam ne yéen xale yi yéen a war jël ndox ngeen roose ko bi kon mag ñi kilifa yi yal na leen fi yàlla yàggal gannaaw loolu ñu fas yéene waxtaane lu am solo ku nekk na déglu baat yi lu tax yàlla wàcce ñu ci kaw suuf laajte la boo xam ne bëgg naa ko nekk mi teewlu tontu bi lu tax yàlla wàcce ñu ci kaw suuf walla lu tax yàlla mi bind ñu ñun wala lu tax yàlla subhanahu wa taala mi sàkk ñu wala lu tax yàlla subhanahu wa taala mi defar ñu lii doomi aadama bu nekk jinne ju nekk war naa laaj boppam lii mi fexe mi ut tontu lu tax yàlla sàkk ñu lu tax yàlla wàcce ñu ci kaw suuf lu tax yàlla bind ñu lu tax yàlla defar ñu léegi dañoo dellu ci alquran ñu ut tontu bi ci biir alquran karim lan mooy alquran moy kàddu yàlla subhanahu wa taala waxi yàlla subhanahu wa taala mooy téere bum jox yonentam bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mi eggee ko jaam ñi légui dama bëgg ñun ñëpp ñu dellu ci téré bobu di alquran karim téré bobu di wax yàlla subhanahu wa taala téré bobu mi wàcce ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mi jotali ñuko lan la wax lan la tonto si laaj bi ñu laaj lu tax yàlla defar ñu ñun lu tax yàlla sàkk doomi aadama ak jinne yi lu tax yàlla defar ñu ñu dugg si alquran ñu ubbi di jàllar bi di egg saar bu ñu wax addaariyaat ko suuratu addaariyaat Addaariyaat moom saar bi indil nañu tontu bu leer nañ lu tax ñu bind doomi aadama ak jinne yàlla sàkk doomi aadama ak jinne lu tax yàlla wàcce doomi aadama ak jinne si kaw suuf si alquran mu ne si saar bi ñu tudde wa suratu addaariyaat yàlla mu ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun ne binduma nit ki ak jinne ji lu dut ñu jaamu ma ñu kennal ma bon ñun doomi aadama yi jinne yi war ñoo ñoo xam ne lu yàlla sàkk ñu mooy ñu jaamu jaamu jooju mooy ñu wéetal ko kennal ko kennal ko buñ ko bokkale ak dara yàlla bëggut nga utal ko morom ngir amut morom yàlla du moromi kenn yàlla bëggut ñu koy jaamu ñu jaamu keneen teg ko ci jaamoo lu yàlla gën a bëgg si ñun mooy ñu wéetal ko kennal ko jaamu ko moom rek moom dong bu ko boole ak leneen lii ñun ñëpp war nañ koy dégg ngir lii la yàlla gën a bëgg si ñun te lu ñu digal yëpp lii moo si gën a rëy mooy lan jaamu ko moom kenn foog naa da ngeen dégg ñu ne yàlla kenn la amul morom baat bi dafa neex yàlla daf ko bëgg lool bëgg na jaam bi wax ko ci làmmiñam cër yi tamit di ko jëfoo cër yi di ko jëfoo yàlla kenn la di nga xam ne yàlla du sa morom lii la yàlla bëgg ci ñoom làmmiñ bi wax ko jëf yi wala cër di ko jëfoo yàlla rek ngay jaamu duma jaamu keneen ku dul lépp loo xam ne ñu ngi koy jaamu weddi ko bem de si te baat bi mooy baatu laa ilaha illa baat bu gën a diis si baat mooy laa ilaha illa allah lu laa ilaha dàq lépp lu ñoo ne lépp lu jaamu fen la neen la bem des ku jaamu yàlla bon baat bi dañ ko war a dégg ngir mooy baatu tawxiid looloo tax yàlla bind ñu yàlla daf indi si kaw suuf ngir lan ñu jaamu ko moom rekk rek rek rek buñ ko tollale buñ ko bokkale dara dara ba dara jeex dara te baakaar bu gën rëy baakaar bu gën a rëy si baakaar yi mooy yàlla bu gën a si mooy yàlla mooy jaamu keneen ku dul yàlla amul baakaar bu ko gën rëy loo tax yàlla wax ci alquran ne képp koo xam ne dee nga ak baakar bii di bokkaale yàlla mu ne maa bañ duma la jéggal foog ma mbugal la bon dina rafet waaye dina war dina nekk loo xam ne dafay war jàngkat yi imaam yi taalibe ñu yee nit jàngal leen lu ñoo wax at tawxid jàngal leen lu ñoo wax a shirk mooy bokkaale ñu mën a dund tawxid ñu mën a sori lu ñoo wax bokkaale yal nañ yàlla dimbale ñu sori ko soo demee si alquran yàlla subhanahu wa taala di wax ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allah wajtanibu taaxut yàlla mu ngi ne wallahi sax na ne yónni naa ci xeet wu nekk ab yónnent xaw ma ndax yéen a ngi dégg wax ji yéen a ngi ju may wax ah yàlla mu ne maa ngi gëñ ne maa ngi waat ne yónni naa si xeet wu nekk ab yónnent xeet bu nekk umma bu nekk ñun suñ xeet bi yàlla subhanahu wa taala muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yónni xeeti ibrahim yàlla yónni ibrahim xeeti muusa yàlla yónni muusa ak harun bon xeet wu nekk yàlla subhanahu wa taala mu ne maa ngi gëñ ne yónni naa fa ab yónnent yónnent yooyu suñ eggee lu ñoo njëkk a wax seen nit ñi an ibudu llah wajtanibu taaxut nangeen ngeen jaamu yàlla ngeen sori lépp lu ñoo jaamu ku dut yàlla abudullah na ngeen wéetal yàlla na ngeen ko jaamu wa janibu ngeen sori ak taaxut taaxut mooy lan képp koo xam ne jaamu nañ ko ku dut mi nangu ko yow taaxut ka léegi dinaa ma laaj ma seet ndax di ma mën a tontu te gëm naa ne tamit di ngeen ma mën a tontu mooy ndax malayka bu mel ni jibril dinañ ko jaamu déedéet dégg ngeen jibril ku màgg la ku jege yàlla la ndax yelloo nañu jaamu ko ndax yelloo nañu sujuudal ko ndax yelloo nañu ekkati suñ loxo di naan Jibril suñ soxla ah déedéet lu tax ngir moomut ko yelloowut ko ku ko yelloo moy kan yàlla ma ñu ñëpp xam nañ Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla bind yëpp moo si gën léegi man laaj leen ndax dina dagan ndax dina wér ma dem ba Madina fa mu tëdd ma tiim baameelam bi naan ko yow Muhammad dama feebar may ma wét gu yaram ndax loolu wér na ah déedéet yéena ko wax de te wallahi moy deug werut ngir lan muhammad ku for la waliyu la waye mom passé na wali ci suñ gis gis ab yonenti la lu yalla bind yep mo ci gën da ngay deug olaf ñu nan ko ndol makka ya len gën lool yep deug la waye du dagan madem matim bamelambi nan ko muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang lay ñaan wet gu yaram dama febar so ko defé bokalé nga moy jaamu nga kenen ku dut yalla wax ji dañ ko wara dégg dé waaw su nekké né lu dagan nga wax li jëmele ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam bon ana kan la moo dagan si doomi aadama yi nga jëmale ko kàddu gi ndax dina am am si kaw suuf du am si kaw asamaan ku dut yàlla rek xaw ma ndax yéen a ngi may dégg nag waaye wax jii wallahi am naa yéene pour mi egg si bépp jullit képp kuy jaamu yàlla nii nga war a jaamoo yàlla ne awma dara ku may jaamu ku dul yàlla subhanahu wa du ma jaamu malayka duma ma jaamu jinne du jaamu doomi aadama sakkantuma di jaamu doj ak xeer ak garab sakkantuma du jaamu niw baameel lii dafa war a leer si suñ bopp yi ne jullit du jaamu keneen ku kan yàlla soo jaamoo yàlla nga jaamu keneen teg ko si yow bokkatoo si jullit yi ndax leer na ana si ñun moo bëgg a jénn si jullit yi abadan fooguma ne am na kenn si ñun góor ak jigéen ku dugg si islam ba pare ñu ne jénn na nekkatu jullit yal nañ yàlla musal si loolu bon baat bi di laa ilaha illallah ñu koy wax guddeeg bëccëg day war a dégg la firi lan la tekki ñu xam soo ne laa ilaha illallah mooy dàq nga lépp lu ñoo jaamu kudut yàlla mooy ne yow nangu nga ne lépp loo xam ne ñu ngi koy jaamu képp ko xam ne ñu ngi koy jaamu te du yàlla jaamu jooju du dëgg neen la te du la jëriñ dara lii la yàlla bëgg si ñun ndax pare nañ pour defal ko yàlla suñu borom te wallahi warut ñoo sant ñu bañ ngir lépp loo xam ne ñu ko am si xéwal fan la jógee si yàlla benn suuf si ñu taxaw ku ko moom yàlla ku ko lal yàlla ku jël doj daaj ko ci kaw suuf si ba mu dëgër kan la yàlla bëccëg gi ñu nekk leer gi ñu nekk kana ko fi indi yàlla jant bi tiim ñu kan ko fi indi yàlla asamaan si ñu nekk si ronam ñu ñëpp amul kenn koo xam ne dina mun a jénn ron asamaan kenn si ñun du jinne du doomi aadama amul kenn ku mun a jénn ron asamaan bon ndax kooku war nañoo sant dara ñu bañ ndax kooku war nañu sant dara ñu ne ko déet suñ ko defee ñàkk ngor la rek te xamadi suñ bopp la rek ngir koo xam suuf sum lal aca ekedil sa tàng na tey du ma taxaw si suuf si geddal nga ne gedd naa suuf fi yàlla ya si ana foy am foy dëgg sa tàng ana foy dëgg sa tàng geddal nga ne ron asamaan si duma ko ronot ana fan ngay dem foo xam ne asamaan du la tiim ku ñu defal lii yëpp yàlla bon ñun mënuñoo rëcc yàlla doomi aadama muntu rëcc yàlla jinne yi mënuñoo rëcc yàlla amul benn mbindeef moo xam ne dina mën a rëcc yàlla subhanahu wa bon yàlla lum nam si ñun mooy ñu jaamu ko mom dong mom kenn buñ ko bokale dara ni ko bokale dara li so deme ci alquran mum fa fess tab borom bi mune wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah allahu akbar wa qada rabbuk mooy sa boroom atte na sa borom dogal na sa boroom digal na ne buy njaamu kenn kudut moom kudut moom suñ mbokki jullit yi nañ beesalaat suñ gëm yàlla ñu beesalaat suñ jaamu yàlla ñu xam ne yàlla lam gën a namm si ñun lam gën a bëgg si ñun mooy jaamu ko moom dong moom kese buñ ko bokkaaleeg dara buñ ko bokkaaleeg dara yal nañ yàlla jàppale si loolu képp koo xam ne dee nga si loolu yow texe nga képp koo xam ne dee nga si jaamu yàlla rek jaamuloo keneen ku dut moom yow texe nga luy loolu mooy yow dugg nga àjjana ba borom bi mu ne waabudullah wala tushriku bihi shay'a na ngeen jaamu yàlla bu leen ko bokkaaleek dara dara dara mu ne qul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a mu ne yonent bi ne wax leen ne ñëw leen dikk leen kaay leen ma jàngal leen ma wax leen ma liiral leen la yàlla xaraamal ci yéen fam ko njëkkee mu ne alla tushriku bihi syai'a bulan kau vokalek darah darah darah wa hanay bi sanqne do dagan nga jamu malaika bu ñoo wax lan jibril do dagan nga jamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bon do dagan nga jamu ñaar yi bon do dagan nga jamu kenen ku dut yalla ku dut yalla bon alquran moo ñu nettali lii moo ñu nettali lii am na xadis boo xam ne ku ñoo wax Muaad ibni Jabal moo ko soloo moo ñu ko nettali Muaad mu ne lan mu ne kuntu radifa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala ximaarin nekkoon naa koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko porté si mbaam loolu mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa eb muaad si kaw mbaam yonent bi dafa war mbaam mu ne muaad ne kaay éeg nga toog suma gannaaw ñuy dem di dem di waxtaan ينتبه صلى الله عليه وسلم من معاذ ما يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله من معاذ نخمغا لن موي حق يالا سي جامي اك حق جامي سي يالا دغلو لين دي يوننتي موي لاج كومي لاج معاذ واي بي ني نيب لاكو ñëpp ñëpp la ko bëgg a laaj mu ne Muaaz ne ndax xam nga lan mooy xaqi yàlla si jaam ñi ñan ñooy jaam ñi ñun doomi aadama yi ak jinne yi mooy yàlla dafa am xaq si ñun mu ne ko gannaaw loolu ndax xam nga lan mooy xaqi jaam ñi tamit si yàlla ba ñun tam dañ xam xàq si yàlla waaye loolu borom bi karim rek waaw karim la waaye su dul loolu ñun ah yàlla lu mu def rek baax na ngir moo ñu sàkk moo ñu defar defar ñu nekk jox feyuñ ko dara ndax day fay yàlla mi defar ñu joxuñ ko dara dara ngelaw lii mi yónnee ñuy nokki su ko téye woon ñu génn àdduna luñ ko fay dara ndox mi ah ñu ñëpp ko soxla ah ñëpp ñëpp amul kenn ku soxlawul ndox say deret wala sa yaram su manqué woon ndox rek ñu tëral la lopitaan sol la ndox ba nga fees nga jogaat bon ñu ni yàlla subhanahu wa taala dafa luñ ko dara loo xam ne dinañ ko mën a fay waaye dafa wàcce boppam ba xam ne mune jam yi tamit dañ am xàq ci mom bon déglu len fi yonent alayhi salatu wassalam mu'atun tuko mune ko allah wa rasuluhu a'lam yàlla ak yonentem ño xam man xawma de netali no ma dégg yonent alayhi salatu wassalam mune ko حق الله على العباد an ya'buduhu wa laa yushriku bihi shay'an mu ne xaq yàlla si kaw jaam yi mooy nañ ko jaamu moom kese buñ ko bokkaaleeg dara dégg ngeen lii xaq yàlla la nañ ko ko jox cër la boo xam ne yàlla moo ko moom nañ ko jox cëram gëdd la boo xam ne yàlla moo ko moom nañ ko jox gëddam tabaraka wa taala mooy buñ jaamu keneen ku dut moom mbokk yi ndax fi leer na keneen ku fi jaamu keneen ku dut yàlla wallahi yaa si réer koo fi jaamu ku dut yàlla yaa si réer loo tax nañ fexe ñu tegu si lii mooy jaamu ko moom kenn moom kenn donc subhanahu wa taala buñ ko bokkaale ak dara dara dara su ma dara dara du dugg dara du dugg suñ defoon lii ñi nangu tegu si lii ne jaamuñ keneen ku dul yàlla léegi xam nga luy suñ xàq si yàlla yàlla du kenn si ñun allahu akbar kenn du dugal kenn safara kenn daf ñuy jéggal loolu tax tawxiid dafa am ngëneel lu màgg lu si mooy képp koo xam ne tegu nga si tawxiid jaamu yàlla moom dong xamal ne kooku mucc na safara yal nañ yàlla boole si ñooñu bon xadiis bi dafa neex ngir soo jaamoo yàlla moom kese nga nekk koo xam ne mucc nga safara mu dafa gis ne ah mbir mi de war naa ko leeralal nit ñi mu ne yonent bi ndax mun naa bégal nit ñi yonent bi ne déedéet bu leen bégal bàyyi leen ngir dama ragal ñu sukkandiku si loolu bàyyi jëf jëf ju baax xam nga suñ ne nit ñi doo jaamu keneen ku dul yàlla di nga gis koo xam ne mu ne ah bon yeneen baakaar yi moom mun naa koy def rek ngir suma ma si baakaar bii di mooy yàlla dinaa dugg àjjana bon xaaral mën naa def yeneen baakaar te fekk déggin boobu wérut lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ragal loo tax mu ne mu ànna ngir beneen xadis bi bu ko yonent bi salaatu wasalaam waxee Abu Dhar mi laaj ko mu ne ko yonent bi su ma ma la dafa am lu ma bëgg laaj fii su nekkee ne waa ji dee si tawxiid bokkaalewut yàlla dafa jaamu yàlla moom rek ba dee dina dugg ajana su nekkee ne sax dafa sàcc mi njaalo yonent bi mu ne ko su sàccee si njaalo dina dugg ajana Abu Dhar toog bi mu yàgg dafa niroog mu ne ah foog naa déggut lu ma ko de mu ne ko ma ne su sàccee sax njaalo yonent bi mu ne ko su sàccee su njaalo dina dugg àjjana Abu Dar ñettal ko waat ma ne ko su sàccee su njaalo mu ne su sàccee su njaalo neex na Abu Dar naqare na ko dina dugg àjjana kon tawxiid dafa am solo dafa am solo lu tax suñ yaay suñ baay ñun ñëpp dañ booloo yar suñu xale yi si tawxiid kennal ko buñ jaamu keneen ku dul yàlla ñu amuñ kenn kuñ war a jaamu ku dul yàlla ak lu nit màgg màgg duñ ko jaamu ak lu jinne gudd gudd ba si kaw asamaan si duñ ko jaamu ku ñoo jaamu ku bind asamaan ak suuf ku bind doomi aadama yi ak jinne yi kooku rek moo yelloo ñu jaamu ko mooy kan rabbul alamin bon li nek na lo xamne dañ ko wara waxtane jar na ñuy dugg auto di wër dëkk yi diko yébané jël microphone di dugg ci biir lu ko ruku yi diko wax nit ñi diko dégg su nekké né wa politique ñoy jël seen auto di taal di dugg dugg yi ngir lan di leen ñaan seen carte yi di leen utalo aduna rek waaw bon ñu jàng alquran ak sunnah ñu jàng tawhid war nañu egg ci ñi jottali leen kàddu gi di kàddu yàlla subhanahu wa taala bon yaay baay kilifa nay xam ne lii la yàlla tax lii moo tax yàlla subhanahu wa mi bind ñu bon leer na ne ndekete soo gisee ñu ñu mooy lan wéetal yàlla loolu leer na leer lu ñu bind doomi aadama ak jinne looy tontu mooy wéetal yàlla yàlla am na ñoo xam ne soo leen ñu bind doomi aadama ñu ne soo gisee yàlla bind doomi aadama muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax déet alquran waxul loolu de alquran mu ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun ñun em fu yàlla em looy li yàlla wax la ñu wax duñ si yokk duñ si wàññ wax ji dina naqari ñenn yi déedéet waaye yàlla mu ne soo gisee mi bind Muhammad la déedéet waxul lool soo gisee mi bind ñu ñu jaamu ko moom du keneen bon lii moo tax yàlla subhanahu wa taala mi bind ñu képp xam ne nanguwut lii dañ lay jàngal suratu kafirun soo bañee ñu ne la qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun duma jaamu loo leen ne jaamu maa bañ kubiyamu bamel marombula kubiyamu kerem marombula kubiyamu dej marombula kubiyamu garap marombula fi dem jamu kan borom jumaay moy kan yalla ya subhanahu wa ta'ala wa anna al masajida ma romb la fi de dinaa la fi romb dem jaam ko mu ngi fan donc yéeféer leen yonent bi soxoon sonnalee comme niñ ko waxee mi jaaxal leen fekk bañ nañ ba sonn waaye bis bu nekk diine ji di gën a am doole rek loolu tax diine moom kenn mënu koo de alkaali du ko mën a xeex almaami du ko mën a xeex président bi du a xeex diine ku fi xeex diine nangaajin diine di la fi romb di sa doom sax mooy ñëw parle diine sa doom ju nga jur mooy ñëw na la baaba déedéet lii diine yàlla la donc ñun ñëpp dañ war a màttu rek ñu jàppale diine ci jàppale suñ bopp comme ñaari kilifa yi nañ ko def xale duñ fi waare duñ fi wax loolu déedéet du fi amee déedéet yow dina wax de yow yaay dee nga dem waaye xale dinañ ko fi wax yàlla mooy bind loolu du keneen moo tax ñun ñëpp dañu war a jàpp ci diine ji ci diine ji yéeféer yi buñ jaaxle ñu xam ne mbir mi daal mu ñoo bëgg a ëpp baaraas nañ ne bu du fi romb waaye nga ba léegi nit ñaa dugg rek bu dégg bëccëg mi gën a bëri rek nit ñu ne waaw léegi nañ oo Muhammad ñu toog ñu waxtaan yonent bi ñëw ñu toog liñ ko wax ñu ne ko waa léegi dañ bëgg def agreement ñu nangu ko ci dara mu ne leen mooy lan mu waa léegi at bii ni ñu nekk nga ñëw ñu jaamu sa yàlla yow koy wax ñu jaamu ko at bii wala nga ñëw nga jaamu ñun suñu yàlla yi at bii ñu ne su at bi jeexee ñu ñëw ñun ñëpp ñu bokk ak yow ñu jaamu sa yàlla <laughs> dégg ngeen wax ji te loolu bañ jaaxlee lañ de def nañ pexe bu nekk mënuñ si dara bañ demee ba jaaxle xam ne mbir mi daal ah ëpp nañu loxo léegi ñu ne nañ oote ñu def dialogue nañ oote ñu waxtaan ñu ne Mouhamed waaw at buy nekk yow dangay ngay ñëw bokk ak ñun ñu jaamu suñu këram yi su at bi jeexee ah ñun tam ñu jaamu sa yàlla ji nii lañ ko def at at at at rek yalla wacc sar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد Thank you for watching our videos. Please subscribe to our YouTube channel Dar es Salaam Digambi. شكرا لكم لمشاهدة الفيديو لدينا. شكرا لكم جميعا.